auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñuy topp ci chaîne chaîne Serigne Djily TV maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziyaara bu baax a baax di leen baalu àq di leen ko baal ñu ñëwaat teg yeen ba tey ci ilmu ramli muy xam-xamu tomb suuf euh, di xam-xam boo xam ne nag lépp mënees na ko cee génn maanaam ci wàllu seet ak ci wàllu xam tey nag dañuy ñëw ak yéen ci seen dars rabia muy dars numéro 4 bi ngeen xam ne jàngoon ngeen ni ngeen di génn ndey ak doom yi léegi nag ñu ñëw ci sët yi nan lañuy def ba génne sët yi gis ngeen ñeenti doomi ndey yi mi ngi nii njëkkoon génne dars bi passé jàngoon na ni ñuy génne doom yi darsi bi nag dañuy ñëw ci ni ñuy génne sët yi masalan buñ jëlee ñaari doom yi ndey yu njëkk yi muy taaw bi ak ñaareelu gisaane moom laa wàcce nii fii dangay jël ñaari bopp yi xam nga gëbërkëtt bi benn la moom laa def fii muy benn bëdd na bi benn la moom laa def fii benn léegi ñoom ñaar nii boo boolee benn ak benn da lay jox ñaar muy azawju su ko defee ñaar yooyu moom laa bind fii muy ñaar yi nga tegale ko nii ci seen ron nga ñëw jëlaat seen baat muy ñaar yii bii ñaar la baatam ñaar la ñaar ak ñaar xam nga soo ko boole ñeent la lay jox waaye doo bind ñeent ñaar rek ngay jël gisaane benn rek ngay jël wala ñaar su ko defee ñaar yooyu nag moom ngay tegaat fii mu nekk ci baat palaasu baat bi boo ñëwee ci ndigg li nga jël fii benn la fii tamit ñaar la moom laa def fii benn zaid ñaar xam nga ñett la war doon waaye doo jël ñett benn ngay jël maanaam su tóolee rek su matee ñett rek su dee ñett rek benn ngay jël su ko defee nga def ko fii ci seen ron nga def ko benn fii yaa ngi jël ñaar tànk yi ki tamit tànkam benn la ñaar ak benn soo ko boole ñett lay doon kon su boobaa benn rek lay jël su ko defee ma def fii benn mu génn beneen doom doom bii moom la ñuy woowee samra kon gis nga génneel ni ñuy génnee troisième bi muy sët yi ak ni ñuy génnee ndey ak ni ñuy génnee doom yi am na différence bu ci nekk dafa am yoonu boppam kon bii da ngay boole ñaari bopp yi su dee benn ak benn ñaar lay doon maanaam su dee zawju rekk moom ñaar ngay bind su dee fardu soo boolee mu nekk fardu impair benn ngay jël fii benn ak benn mu jox la ñaar nga teg ko ci kaw ñaar ak ñaar mu jox la ñeent waaye ñaar rek ngay jël benn ak ñaar mu jox la ñett benn rek ngay jël ñaar ak benn mu jox la ñett waaye benn rek ngay jël mu génn doom bi ñu tuddee samra léegi noon ngay boolee ñaar yii ñaar yii nga moom moom nga boole moom laa boole mu léegi mu génn samri samra nga tegaat ci boolewaat ñaar yii muy ñetteel bi ak ñeenteel bi soo ko boolee gëbër këtt lalay lay génneel gis nga ko ñaar ak benn da lay jox benn ñaar ak ñaar dalay jox ñaar ñaar ak benn da jox benn ñaar ak ñaar jox ñaar nga boolewaat ko boolewaat ñaari doom yi ñaari doomi doom yi muy siifar bi ak sëgal moom it dalay jox siifar nga boolewaat bëdd na bi ak aamar moom it dalay jox siifar bu ko defee nag doom yi ngay wàcce ñaar yi nga boole bu ci nekk doomam danga koy def seen diggante ñaar yi ñoo bi ñaar yi bi ñaar yi ñoo jur bi ñaar yi ñoo jur bi ñeenti doom yi nga amaat seen suuf moom lañ tudde sët yi sët yi gisaane am na yeneen turuwaay incha allah danañ ko leeral ci dars yi di ñëw ak doom bu nekk taxawaayam ak doom bu nekk lu muy faral di firi kon léegi xam nga ni ngay génne ndey yi nga ni ngay génne doom yi xam nga ni ngay génne sët yi incha allah dars bii di ñëw dinañ leen leeral ni ñuy génne poqataanu ndeyjoor ni ñuy génne poqataanu càmmoon ak caat mi ak caataan mi incha allah kon maa ngi leen di dellu di leen nuyu di leen sant di leen wax ñu tasaari vidéo yi ni mu gën a yaatoo ngir mbokk yi nga xam ne yittewoo nañ ko ñu mën di ci jariñu ñoom itam wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa